Euh, bu réussir dina nek lo xamanteni lu bax ci éducation la euh, xanaa nak fima ma dal gëna insister te dégguma croque euh, député yi lu bari ñu wax ci moy surtout manam pàcc bi ñu jagleel école privée yi te lool dafa am solo donc bo xolé ci Sénégal école privée yi jot subvention matu ñu sax 3 ci école privée yëpp te ñu li ñuy def ni mission publique la mission bo xamanteni eh, di former di jappelé parce que éducation état moko yor moko moo yoral population donc ñun buñ ci engagé wo diko def état lañuy jappelé donc danay dinay bax état aussi tamit diñ défal ay subvention bien vrai que subvention yoy euh, ñu amna mais manam méthode biñ ko joxé pour école privée yi accéder si dafa xawa jafé bon dafa am fu mu taggatémbee parce que bo yoré école privée dafa am benn nombre d'années bu ñu lay laaj pour nga soog am euh, boo amee autorisation maanaam ñu offi ñu rendre école bi officielle ba nga mën a def ay candidats ba nga mën a déposer ay candidats au bac ñun am nañ ko depuis le 24 euh, janvier 2018 la am arrêté d'autorisation ministère pour wane ni ñun école bi légal na am na papier yi mu war yëpp pour déposer ay candidats officiel et tout depuis loolu tamit ñu ngi koy def. Euh, donc euh, ba yalla dogal na sax daw en série S2 am nañu 100 série S2 baccalauréat donc euh, ak quatre mentions am également beaucoup d'élèves yo xamanteni ni am nañ ci bac donc ñu dépassé largement la moitié yalla dogal na sax ba nekk première fille dans la zone mais duñ jot subvention duñ jot subvention parce que démarche yi moom ñu mais démarche yi moo compliqué c'est-à-dire li ñu lay laaj manam charge yi ñu lay pour nga pour nga mën am subvention mo jafé donc loolu daal côté boobu mënoon na am waxtaan discussion ak waa CAPEP mooy kuréel gi tënk école privée yi ba ñu xool daal nu ñu gën a rendre les choses accessibles pour que école boo xam te remplir na conditions yi ñu mën ko jox subvention loolu moom dina ci baax parce que école yi souvent li ngay dund li ngay mën a fonctionner rek mooy li nga xam te ni moom la parent moom la élèves di fay souvent moom ngay xool non fonctionner te dafa nekk loo xam te ni dafa xaw difficile parce que euh, année scolaire 9 mois les durer te yow da nga war fonctionner sur 12 mois donc loolu lépp ay ay dafa laaj ay ay dafa laaj ay ay calcul yu bëri il faut que également mu am subvention wu état pour que école yi mën cee génn donc côté boobu noonu mais bi ci des nag moom ci côté wu budget bi dëgg nañu budget bi gis nañ vraiment yokkute yi si am mais euh, di ñaan rek wax dëgg yàlla aussi tamit euh, écoles yi euh, actuellement soxlawaat nañ ay ay ay table soxla nañ également ay classe parce que da nga koy dégg ci dëkk yu bari Eh, ñuy am problème mu classe dëgg la eh, élève bi dem jànge ci abri provisoire moo gën mu bañ a jàng waaye nag su fa nekkee quelques années comme provisoire la warta nekk loo xam te ne day définitif bu ko defee ñu jéem xool nañ ko nañ ko réglé eh, évidemment def nañ ci ay efforts yu bëree baree baree bëri diggante dix ans yi passé ci construction wu classe yi ak ci tablement yi yëpp mais ñu gën a yokk rek parce que dañu xam ne population bi day yokk parce que chaque année population bi ni muy yokkoo taux d'accroissement naturel au Sénégal dafa dafa dafa dafa xawa am doole donc il faut que état bi di anticiper ci côté bobu noonu de gëna jappalé rek euh, éducation pour ndaw ñi. waaw euh, enseignants yi moom wax dëgg yàlla dañuy féliciter côté boobu état parce que gis nañ effort yi mu def maa ngi rappelé bi mu fi ñëwee woon daaw ñu ngi doon wax suñu inquiétude par rapport ak grève yi. donc mu nekkoon loo xamante ni également lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu metti woon la waaye wax dëgg yàlla gis nañu effort yi euh, gouvernement Sénégal def ba yokkal enseignants yi ba actuellement alhamdulilah wax dëgg yàlla gis nañu également engagement yi mu jëloon tamit ñu ngi koy respecté ñu ngi koy jéem a def ba moo tax sax climat social bi actuellement au niveau de l' enseignement mu am benn apaisement donc loolu moom dañ ci sant gouvernement bu baax di ko ñaan rek mu gën a yokk parce que tant que travailleur mi ngi am moom revendication syndicale day am mais luñ ci mën a def rek ba anticiper ba ay problème du am ba ay grève du am ñu def ko rek su ko defee éducation rek moo ci gagné suñuy xale ñoo ci suñuy ndawu réew ñoo ci gagné. waaw message bi daal di wax rek euh, euh, ñun ñëpp rek ñu gën a jàpp parce que muy parent yi muy professeurs yi muy ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiite école yi ñu xam ne ñoo bokk même objectif suñu objectif rek mooy réussite xale yi pour xale yi réussir nag dafa am lu mu laaj dafa laaj ay sacrifice financier yu bari yu parents yi wala def surtout bu dee école privée dama koy wax chaque jour xale yi. man leen man mënuma nangu parent bi di fay xaalisam te élève bi du jàng donc loolu noonu damay gën a ñaax élèves yi ci côté boobu ñu koy gën a xool ñu nekk ci public bi également ñu xam ni amul benn moyen ascension sociale bu gën a gaaw éducation donc ñu gën a góorgóorlu ci jàng bi wuti ay diplôme sàkku ji xam-xam pour ëllëg parce que ñoom ñoo war a yore réew mi di wax parents yi également ñu gën a vigilant ci xale yi parce que léegi agression yi dafa bari internet baa ngi fi réseaux sociaux yi surtout réseaux sociaux yi di ci ciy dégg des fois di ci ciy dégg loo xamante ni lu lu eh, lu safaanoo la ak yeneen yi ci des yëpp mu nekk loo xamante ni daal parents yi dañ cee war a gën a jël ay mesures su ko defee ñu gën a surveiller seeni doom ñu gën a mën a jàng ñu def ko en collaboration ak euh, administration école yi seen doom yi nekk.